mbokk yi nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di seen point com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci sit bi ngir ngeen man di topp suñu programme alhamdulillahi alkarimi silmiman ala bi furudin wa على السخال بفرود وسمن سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع وخادني إليه بالتعالي من بعد ما سبب التخيل وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي خزي قنى تبعا هل الذي من بمراد اختدى في سر والجاري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينه بأمر ربي فسان الدين وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير ولا سفيع وآله وصحبه النجوم الخاعر النفوس والرجيم هسا وين اليوم يا وابو خيرك في دارين لا يحابون وإنني يا بر يا كريم داين وعن شكرك العليم منذ جسبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري معاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك خسرت لما لم أجس أرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني لاختفاء سني من بعد ما قدمت داو الناس يدخلني في سرك الخنازين وكدت للأمراء والإقراع أسد في تالف والإقراع وفي تالف saa yu ta wootee bis bi dana gis ñëpp waaye bu ngeen teewee nag lépp bis bi lépp mat na ndax bis bi dem nañ ba nga xam ne waa Mbàkke yëpp danoo yàkkamte bis bi ñëw ndax sopp gun sopp sëñ Fallou sëñ Fallou moo ne ci xol yi moom mii nag fuñ ci mën a dem di waajtaay bis bi daan lépp delloo na ko sëñ Fallou rek wax nag waajuram wu jigéen ah seeni diggante ak moom xam na ko bu baax a baax ci jàpp ngeen ko jàppoon loolu lépp na ngeen continuer ko ci jëmmam ji loolu fu mu ci toll mi ngi koy fàttaliku mi ngi koy sant barki dem lan dem ci sëñ Baara maamoor Moor mu koy leeral ne ko man yéen rek la am Mbàkke ndax sama waajur wu jigéen wax dëgg yàlla sëriñ bi rek la am sëriñ bi lay béggee léppam sëriñ bi la muy nit ak waajuram bu góor waaw sëñ Maam Moor ne na ak waajuram bu góor waaw waaw Mbàkke nag fii fii fii daal tey daal ñëpp bég nañu bis mën naa ni lépp mën na bi ñu jàngee alxuraan ngeen ñëw rek lépp mat na euh, mu leen di seeree ni sëñ Jili Ñang mi day kenn ci moom dikk na ànd ak moom liggéey bi te nee na lépp loo xam ne si tuddoon tuddoon ca sëñ Fàllu noonu la sëñ Jili Ñang mi di doxal dikk na ànd ak moom bés bi ànd moom liggéey bi nee na te sëriñ Tubaa rek tax nee na mi ngi leen koy seereel bu baax a baax a baax nuy am mbégte ñun daal ñëpp bég nañu comité bi àndal bés beeg ñëpp bég nañu Cheikh Mouhamadou Mourtala ñoo ngi ñaan nga yàgg fi te wér kontaan nañu benn benn baat rek la la ñëpp di seereel fonk nga taalibe yi jàpp nga taalibe yi bàyyi nga xel taalibe yëpp ñëpp kontaan nañu. sëñ bi maanaam am loo xam ne ñu naa ne ñoo Cheikh Mbacke mi ñoo koy xam jàm jàmbaar sax waaye am na loo xam ne xam nañ ko moom mii yéen rek la am waaw ndax bu njëkk gone dañ ko daan tiinul ci mag sama baay dafa am bis mu jàpp sama loxo bi ba yóbbu ma ci ci kilifa sàngam ne ko sama doom ji laa bëgg a tinul dama bëgg nga ñaanal ko mu yàgg fi te jub te doon ko Sëñ Tuubaa di liggéeyloo mm. loola nag ca kam ko defoon nekku fi mm. waaye yéen a fi ne yéen bëgg moom mii dañ dañ koy tinul ci yéen nga ñaanal ko mu dund tabarkeel ndax nit bu bu bëggee lu baax mm. buñ ko ñaanalul rek mën naa doy waar ndax دفهم زم بس بس سنخادم ومنما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه waaye ah, nag wala tattabi'u subula su moom waaw moom lañ moom la ñu bañ moo tax nga ñaanal ko mu jub ko ci tabañ a tabañ a dëng wenn yoon ndax fi ne pexe yi ak yëf yi daa bari waaw ah, ngeen ñaanal ko mu dund tabarkeel salaaw waaw dañoo bëgg nga góorgóorlu waaye waxuñu la nga wàcc su doon a tàmbali nag jaajëf yu bari du kii dañ ko soññ rek waaw ah, ngeen ñaanal ko mu dund tabarkeel bis bi nag mi ngi ciy fàttali ko sëñ Abdou Samad moom Cheikh Mamadou Fadal ak sëñ Abdoul Khafour amin. Amin amin amin. آمين آمين amin. Amin آمين amin. Amin amin amin. Amin yi amin. di amin amin. di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di te bu di cloche bi tax mu di man di signaler vidéo nañ ko ci site bi ngir ngeen man di suñu programme